jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk en bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, sa wàccuwaay maamaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir bi rek damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam comme ni ma koy def dox ci doxantu ci goxi fasantikoo yi ñëwaat ba Touba. seet si kilifa mu di Serigne di Ndiaye nga xam ne mu sëñ Saliou dañ ko présenté te borom seet bu leer bi mu di wàllu ramlu bi nga xam ne ku mu ramlu rek Euh, tawféex la nga ci bëggoon di ko gis waaye diggante ñaan ak paj ku ne xam na ko ci ndax mu ngi ciy def résultat révélation kenn du ko waxate ba muy wax ak léegi ku ne mu ngi ci gis gëtam ba tax na dinañ waxtaan ci actualité xew-xew jamono li nga xam ne gis na ko ci politique bi le 17 novembre incha allah mu di élection législative yi ak nga xam ne gis na ko ci prison bi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi leen di jàpp te ñu ne ci prison ba cheikh bi laata may def leen damay bàyyi nga nuyu mbokk askan bi bismillah waaw xanaa seex di di di nga leen di nuyu di nuyu mbokki àdduna <clears throat> biir réew mi ak bitim réew ci képp ku ñuy seetaan ci émission yi nga xam ne ñu ngi ci def di laabiranteeg sunu mbokk jullit yi ci wàllu ñaan ak faj kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la fekk fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay di ñaan saa defal nu jàmm incha allah rabbi jërëjëf sëriñ Modou njaay mu sëñ Saliou am na solo néew yi dal na to ànd ak euh, solo kon baax na ni ma ko waxee suma biir intro loolu lañ fas yéene développé yaatal waxtaan ci xam mën ah mënuñoo dugg ci benn pàcc ñaan nag faj nag te ñëwuñu ci seet bi nga xam ne ñëpp dañ la koo xamee ndax yaa ngi ci def résultat yu am solo waaw waaw mu dee seetu listixaar wala ramle bu am solo bi nga xam ne yaa ko def te yaa ngi ci am yu bëri waaye ramle bi moom gars yi xam nañ la ci bu baax a baax. waaw alhamdulilah Cheikh xanaa di sant yàlla ah, di julli ci yonent bi di ñaanal Sénégal yëpp eh, li nga ma laaj ci seet mm-hmm. danaa la ci tontu. ndax ñaan yàlla seet mooy bunt bi mënoo ñaanal nit ki te duggoo ci biiram ba xam kii mbiram lumu ak yoon wa nga mën a jaar ba ñaanal ko ndax nit bu ñëwee ne la damaa bëgg nga ñaanal ma ubbi ko bu yàlla dogalee nga fekk yaram am am la ci nekk boo ko defalee cangatu ubbi ko bu demee du ubbi ko seet mooy buntub ñaan boo demee hôpital dara dal la doo ne sama bopp day métti wala sama ndigg day métti wala sama biir day métti ñu jox la ay garab dana la tëral consulté la mhm. ni mu amee ci saayir nag ne la amee ci baatin ndax daa am lu xóot loo xam ne mhm. ab xam-xam moo koy xamal nit di ko leeral muy seet gu leer bu nit ki ñëwee wax la aajoom mhm. nga seet aajo ba lam ca war a def la koy fanq ak lay tax bu dee lu ja lu ay jafe-jafe la koy fanq nga leeral ko ko bu dee feebar la nga wax ko solution ba sarax ya muy def ak yoonam mi jaar ba mu saafaraw bu dee ne aajoom la am ngir xool ay mbiram yëpp nga tëral ramlu bi jël turam turu yaayam date de naissance am boo ko xamee ñaari façon seet laay seet tur turu yaayam moom la ñuy soxla jàng leen jàng dugg ci ramlu bi xool sàkku yëpp lu ñu wax ñu tojal la ko benn par benn sées buntu la ramlu bu ci nekk am na lu mu lay xibaar lam la ca wax it la wax solution nga def ci wàllu ñaan ak wàllu sarax bu loolu jeexee benn bi ci dellu date de naissance bi ma laaj ci ilmi nu bu ma xamee sa date de ba nga judd xam at ma nga judd xam weer wa xam bis ba mën laa wax sa tabian man laa wax sa biddiw mën laa wax sa sarax wax la bis ba wax la heure ba bu fekkee ne xamoo sa date de ba tey man mën naa koo xam waaw bu boobaa may dellu ci misaanu uróof jël sa tur tas araf wi jël sa tur yaay tas araf wi araf wu nekk am na fu mu dëkk yii ngi dëkk ci naar yu yi dëkk ci maa yu yi dëkk ci hawa yu yi dëkk ci turab yu bu nekk da koy delloo fa mu dëkk soo paree am na foo jaar teg sa machine calcul wàccee noté bu ci wat rek nga xam ne kooku ci loolu la bokk boobaa ba fa ngay mën a jaar ba xam biddiwam xam tabbi am xam li nga koy digal ci wàllu sarax xam boo koy ñaanal fa ngay jaar ba ay mbiram gaaw xam boo bëggee dina ci moom dara xam fa ngay jaar xam boo liggéey xaatim xam na nga cay doxale xam tab ba mëtlu ba xam heure ba muy jóg nga mën a toog boo ko joxee mu sango nga sikkar loolu ab xam-xam moo koy def moo tax man soo ma wooyee ci wàllu seet ramlu sa mbir bopp damay laaj sa tur ak sa tur yaay ak sa de naissance ramlu ba ramlu bi génn ma wax la sa mbir li nga dund ba romb ko wax la ci fi nga toll nii sa kanam wax la ci loo xam ne sa sa kanam la nekk te ñëwagul waaye mën na laa wax tamit ci loo xam ne sa njaboot lay doon wala ci sa famille wala ci ko la jege waaye lépp lu la wax dana la wax solution ba ci wàllu ñaan ak wàllu sarax bu ma la tëralee ramlu bi leeral la ko benn par benn audio ba pare damay ñëw ci date de licence bi ilmu nujum bi lu ma wax ma tegal la ko ca bu boobaa nga dem def say sarax xool ku la doy mu taxaw la ci wàllu ñaan te man sarax rek seex dama ko def saabarum di nit mu génnee sarax liggéey ba du pare barke alquran waaw rawatina yu bëree bëri danañ ci leeral xuus ci kanam ci wàllu ñaan ak sarax ci wàllu seet li ñu ci saa borom xamal ci sant yàlla te képp ku ci jëflanteel nga xam ne ku xam lu wér seetal na la man du ma seetal nit ku ma seetal nga ne ma li ma wax nit musuma da ngay seetal nit muy wëlbati ko di di résumé mm-hmm. li ko seetal lenn lenn mooy li nga wax daa mel ne laa wax lépp li ko waral nag mooy damaa làmb tuut damaa jàngal ba xam lii ma xam te jànge ko fu wér nag ci loxo ay kilifa man neewoon naa la yi mag laa yor man ah, xam-xamu mag laa yor yu kilifa ma xam xam yi gone mm-hmm. lépp lu ma bëgg xam ci doomu adama bu ma tëralee sabrab la mën naa ko xam seet yor naa ci fukk ak ñett yoo xam ne benn bokku ci ak sa morom te bu ma ci seet lu la waaye ramlu bi da ci yëmut ak del ndax ramlu li ci nekk dafa bari mm-hmm. bu doon yem ci seet dong waaye doom bu nekk am na aajo ci bu muy dox ramlu ci boppam am na sarax booy def ngir bëgg sa mbir di la leer li ngay leerlu nii ramlu bi di la nangul ba di la déggal rawaxaan yi di lay déggal ba loo ci laaj da la koy wax wit yëpp ba doom yëpp génn waaye ngir la ngay def di a nangu ramlu bi di a déggal nga koy gën a maîtriser di ci gën a xam bés bi set muy gën a yes ci am am sart yoo xam ne da nga koy dox sa diggante ak ramlu bi yoo xam ne da nga ko war a def yow sarax yoo xam ne yaa ngi koy def moo tax mbir ku ko yor di ko doxal loo ci gën a xoos di ko gën a xam waaye seet moom ci réew mi ñu nekk gisuma ku ma ko ci defandool man maa la ko wax incha allah seet gu leer gi sëñ mun njaay ko yor allah sa fa ndir lu ci ump boo ñëwee ma leeral la ko ci kàttanu yàlla numéro moo affiché na suufu barre d'écran bi leer nañ képp ko ko ci soxla rek da koy contacté dina jëflanteeg yow ba su xool sedd guy jërëjëf cheikh bi acce ñu desandi ba léegi njëkkanteeg waxtu wi jàll ci yeneen i ponk dama ñëw ci seetin yi li ci mel ni kort naawtal nga xam ne nit ñu ngi leen di njibar te kort den di njibar moom suñu borom may na da ci ñaan yu am solo bisimilah. waaw seex <coughs> dindi njibar moom wala ab liggéey mooy dindi mooy dindi njibar rek dindi njibar wala kort wala liggéey wala umu wala naawtal wala ñu sëf boo ba ma ko xoolee ba xam ne liggéey la dindi ko comme bonjour waaw. ca la may liggéey ca fa may jaar maa ngi ciy liggéey loo xam ne su ma paree xam nga nu ma la koy defa liñ naan ray donn tobb guñ naan ray donn laay laay jël boole ko ak moom jox la ko boole saafara sa jox la ko nga baxal ko boo ko baxalee ba mu bax nga génn ko teg nee ba sa yaram ñeme ko nga joowoo ko lu mu fekk sa yaram du fanaan waaw maanaam képp koo xam ne sa yaram day diis nga xalaat ne dañ laa liggéey wala ñu liggéey la wala ñu sëf la wala ñu naawta la wala ñu kort la kayfiye bi may su ma la ko liggéeyalee ngir toj ak njibar boole koog ray doon ga ma lay wax baxal ko ba mu bax nga teg ko ba sa yaram ñeme ko nga joowoo ko mboolem liggéey bu ma sa nekk ceew day dañ seex yemuma ci loolu maa ngi ceeg tobbug talli ba tey rab saytaane jinne dëmm ak liggéey ak umu sangu ak suuru ak la ma koy booleel di liggéey seex maa ngi naan daakaanday ak la muy àndal toj liggéey rab sayaat sayaatiin xeet yi moom li ma ci yor bu ma koy lim fi laay fanaan tojug njabar ak raxasu yaram ak dindi umu ak ay catak rab yi ci yor bis bu set ma wax ko mi ngi nii tege ay tobb la ay tobb la lépp a ngi tege lenn lu ci nekk ca la ngay dox am na ci yoo xam ne ci wàllu ubbi lay dox yii ci wàllu xaalis lii ci wàllu bayre yii ci wàllu jëkkër yii ci wàllu papier sax ci wàllu tobb dama koo am lu bokkut ak beneen facette bi may jaar waaw fii daal yàlla dogal na tobb moom dindi njabar ak tojub liggéey ak dindi kumte ci kattanu yàlla ba fa tobb yu amee xam-xam ba dafaa nekk boo xam koy liggéey boole ko ak moom saabaram saafara ko ci kattanu yàlla incha allah yii kum jàpp boo ko gis ci ndax da ngeen koy gis saa su nekk mu génne sunguf yi ci lu ne ci la muy dox waaye am na yoo xam ne nag soo ñëwee rek nga koy mën a jot ci nga koy mën a xam jërëjëf cheikh bi atia dañuy dox ba léegi wéndi dégg naa nga koy junj léegi ñu bëgg am xaas bu gaaw te doon ak benn sacrifice waaw seex man nit damay woo démb rek am na ko ma wo ne ma sëñ Modou mu ne ma ne ma xaalis laa bëgg ne ma ak nu ma ko amee ba ñu ma sax sacrifice barke Serigne Saliou dama ko dama ko coupé man waxaatuma ak moom mu insisté waat jëluma ko man seex doxuma ci ay sacrifice xam nga ci li may dox nooraani yu doxuma ci zulmaani yu man ci alxuraan lay dox ak turu yàlla ak garab génnuma loolu lépp lu may def seex dama ci dama dama ciy sóoraale sama diggante ak sunu borom te man damaa dama damaa yaru dañ maa yara fañ ma war a yare ma jàng alxuraan ba ne ba ar xam la ma ci war a xam dara luy mën a tax muy dugg ci ak njibar gisuma ko man ci lasaraar laa nekk muy ñaan yàlla ci wàllu kurus ak alxuraan ak garab waaw moom la ñu xam-xamu asraar xam-xamu asraar ak njibar nag danaa ko xettat la foofu dañoo bokkut man nag njibaruma na leer waaw turu yàlla laa yor di ko liggéey bu ma amee liggéey maa ngi koy liggéey bu ma amul liggéey maa ngi koy liggéey turu yàlla damaa takkoo ak moom ngir bëgg su ma soxlaa ñaan yàlla suñu borom ci aajo am yoon yi may jaar ci wàllu course bu ma ko wooyee rek dana xam ne man maa ngi takkoo moom waaye du ma bàyyi ba aajo ñëw ma yor saa course di liggéey kon nag lu may def dama koy xam waa bi ma wax ma loolu la ko man de loolu du ma liggéey du ma ko xamee du ma ko liggéey ndox doxuma ci ak njibar bu fekkee daal say mbir daa taxaw nga bëgg ubbi ko am xaalis moom ubbiku ubbi ko ñëwal la alal dikkal la am na yoon wu may jaar ci ba mën a tegalee say sarax sart yi nag sarax nag dafa am ay sart bu dee kii day ut alal am na nombre boo xam ne ci wàllu ay ay ay mala lu ñu lay digal yu ñu war a def def ko ay saam joxe ko am na càngat yu muy àndal yu doy waar am na liggéey bu muy àndal ci wàllu kurus loolu nag ci wàllu lay doon ubbi ko ci wàllu wërsëg mhm. loolu kenn du ko kenn du ko liggéey kenn du ko liggéey ne tëddoonut millionnaire ku ñuy dégg waaw ci wàllu ubbiku nag laa la wax de ci wa dara génn ci nag alxuraan dama lay wax sax ci saar yu ma koy liggéey surtout waaqee ci laa koy liggéey man waaqee ci lay liggéey wàllu ubbiku ci wàllu alal su ma ca boole yama ciy boole yëpp ba pare tobb gi ma ko booleel tobbug meew la waaw tobbug new mag ñi xam nañ ko waaw tobbug new laay jël man la ma liggéey la may liggéey ci ab lim nag ab lim ci lu may liggéey ci waaqee ak samay talsam ya may cay boole ak sama miim ya lim ya ma ciy dugal ak njafaan ya may boole ak tobbug neew ga loola am na ci yooyu du ma ko def kot dama koy leeral loola ci laay ubbee doomu aadama bam bam def ko millionnaire laa la wax ci wàllu am am man ci loolu laay wax génnut alxuraan te te lu ma ci lekk lu ma lew la te boo ko yoree alal ju leew ngay am dana la dikkee nii ak nii ak fu nu la neex mën na la faa dikkee ci wàllu ubbi ko ci wàllu am am bu ko am am am bu du ànd ak sacrifice ci lii laay dox waaye am naa ay sacrifice ma dox waaye ubbiku daal ci wàllu wërsëg ak xéewal ak loo dugg am ca ndam ci kàttanu yàlla boo ñu ci jëflantee saabara mën na la caa defal ndam incha allahu rabbi waaw. jërëjëf acca ñëw nag nga jàppale ñi nga xam ne ndax yàgg nga leen di jàppale xanaa ku ñëw ñëwagul ci yow rek euh, waaye wàllum kayit moom mu di tukki xam nañ la ci bu baax a baax ndax yaa ngi ci def ay preuve résultat yu am solo. waaw seex loolu wàllum tukki bis bu set nga laaj ma ci waaye lépp lu ma ci wax rek waxaat waxaat lay doon xeet yi ma ci yor daa bari sama émission bii passé war naa la fi ak ndomba goo xam ne nit du ko takk te doo te doo dem fa nga bëgg dem bu dee da ngaa nekk bitim réew bëgg a ñëw bëgg séjour doo ko takk te ñëwoo bu dee fii nga nekk bëgg visa bëgg a dem doo ko takk te demoo amut muy ne sa ndig nga di ko takk di lijjanti lu demee ne ci xeetu papier wala signature wala contrat bu mën a doon muy échec te doo ko am bu ànd ak dogal yàlla seex ndomba gi bu ma liggéeyee gannaaw ba ma liggéey ba liggéey la may boole lépp ba ànd ak moom deru golo laa koy ewee am na téere bu ñu koy bootal wanoon naa la ko ci émission bee passé téere bi ñu koy bootal téere bi ñu koy bootal deru xojog lañ koy awee bootal ko ci ndigg li bu ko defee ñaari gaaw lay doon nga di ko takk wàllu papier loo ci dox toog dem ak avocat wala nga dem ci siis ki lay déglu ki la ko war loo ci wax ak moom boo fa jógee gongo ngay dégg waaye waaye récite doo ko dégg ba ànd ak yàlla loolu doo ko takk ñu dox la convocation ñu dox la déglu la nga jóg dem fëggatu ñu récité la du am li feek mi ngi ci sa ndigg ngay jël saw daal di ko dox boo ko taxee boo demee ci wàllu papier wala signature loo ci diisaale ak ki nga toog mu war ko signé moom booy jóge mu koy booy jóge mu koy signé moom dañ lay woonale wala dinañ waar goo xam ne cangat ga buñ ko liggéey ba mu àggal reen wëtteen lañ koy booleel nga sangoo ko neuf jours mook mook ndox ma nga ñooy ànd loolu nit du ko takk te amul papier incha allah bu mu ci mën a doon nag c'est sur green carte bu mu ci mën a doon signature permis concours examen lépp loolu nit du ko sango du ko du ko sangoo yor ndomba gi dem di dem di ñaani huit cent ñu lay résultat du am waaw résultat yi ma ci def nag man maa ko xam moo tax ma di ci leeral papier maa ko fi dàq ma ci génnee moom ma ci am ragaluma ci mboolem ñëwuma nag man dong ma am xam-xam ñi ko am bari na ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi am xam-xamu papier bari na waaye résultat yi ma am ci kayit man néew na sëriñ buy mën a taxaw ne li def naa ko résultat ci tey ndax bu ma ci liggéeyee junni nit mën na ma laa waatal ne juróom euh, juróom-ñeenti téeméer ya ak juróom fukk ak juróom-ñeent ya am nañ papier te ci sama loxo la jaare nee la màggal Tuubaa gee jàll bari na ñoo xamante ne màggal si nañ sama kër te man man la yàlla dogal man leen jëflanteel ñoo am kayit ngir mën a ñëw màggal si màggal si nañ sama kër ci sama saal barke alxuraan du benn du ñaar du ñett wa wàllu papier moom li ma ci xam dafa dama cee bari ay code te ñaan nag secret la code yi koy réglé dama koo xam man incha allah jërëjëf euh, sëriñ di Ndiaye mu sëñ Saliou jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo nañuy desandi ba léegi wéyal jaal ci beneen ponk dama ñëw ci ñi nga xam ne ndax xanaa ñàkk a jëflanteeg yow waaye ku ci jëflanteeg yow du ko réccu muy ñi nga xam ne dañuy jaay suuf mu bokk ci terrain bëgg a jaral commerçant bi nga xam ne su xëyee pour mu joxe am 5000 bu mat sax pour mu am ko problème la ak ñi nga xam ne dañoo bëgg a siiw yaa ngi ciy def ñaan yu am solo mu di mbër mu di joueur bi mu di musicien bi. Cheikh ñaari question yi nga laaj wàllu suuf laa ci njëkki wàllu suuf moom jaay ko comme bonjour ci man man toog naa fii jaay ko France li ma ciy liggéey guddig àjjuma laa koy liggéey juróom-ñaari suufi marché laay laay wut yu bokkut liggéey ko guddig àjjuma su ma xëyee dem fa barab ba nekk gannaaw ba ma consulté ba wax la sarax bi nga war a def yow ba yow mi moom kër gi dem fa barab ba nekk ma wis ko fa toog noddu def la may def dem maanaam nee naa ki nga koy jaay yow yaa koy tànn client yi dañ ñëw yaay xooli ki la yaay xooli ki nga a jaay nga jaay ko moo xam nga yor parking oto gaare ku ñëw ne ñaata wan la ginnaaw bu naan dañ faa def dara ku ñëw waxaale dem wax la saraxe nga def bu ñëwee ko ci kàttanu yàlla ku jaay nit ñaata boo dikkee moo fa demee lépp jar ci kàttanu yàlla waaw jaay naa ko Gàmbi départ naa fi dem ba sama Gàmbi dem ba Gàmbi kër gu ñaan day taak ku ñëw waxaale dem dañ naan day taak ma jaay ko ñëw toog ñu déclaré ma kër France goo xam ne ku waxaale dem ñu naan tabax daa màggat ak ma jaay ko te dew ma fii laa toog liggéey li may liggéey yónnee ko ñu def la ñuy def ma toog liggéey ko jot ca ñaa jaay kayit jaay kër seex terrain moo xam ay parking loo mën a jaay mu taxaw buñ ci déggante bu ma la tegee ci yoon saabal na ko jaay ci kàttanu yàlla seex secret yi ko yor secret yi nga yi nga xam ne mag ñi dañ ko yoroon doomu aadama yi di jëw ñuy dugg ci seen kaggu yi di génne di leen ci liggéeyal di faj seen aajo saa daa dogal dama cee gëstu nga ci sama tànk tubay mu jaral ma ba ma xam ci lu wér nag toog ci xam-xam moom li yàlla dogal li ma ci xam a akus néew dama koo jàng dama ko maîtriser dama ko xam làmb tuuma ko dama ci toll naa ci foo xam ne fi ne ma neexee sax doon ci bibliothèque man di ci jàngale te nag taxut ma bàyyi man am jàngal ba fii ma wax ak yow nii lataraar bis bu yàlla sàkk maa ngi sol sama dàll ngir bëgg ma xam tey bu subaa ma xamaat leneen ndax nit ñi buñ la yaakaar danga war a góorgóorlu ci point yëpp nag benn ci ak njub ak loo wax muy dëgg góorgóorlu loo jëflante ak ñoom fexe ba def sa kem kàttan la nga war def yàlla nag mooy nangu ñaan waaye am na code yooyu jaar ak yoon yooy jaar ba yàlla man laa jàppale ca ñaan ya waaye loolu nag dangay ngay fexe ba xam-xam ba jiitu ba pare bu boobaa bu la nit ki diisee nga xam ne leer na ne kii lii ma la diis yaa ngi ceeg lu wér nga def la nga war def lépp ñaan yàlla mu sottal ko ci kàttan yàlla foofu la nekk te yàlla ñuy rus nag incha allah seex maanaam nit buy ñëw naan la dam bu ñëwee naan la dama la naan dama bëgg nga defal ma ma siiw ak wala dama ku bëgg ku bëgg bay rek ku bëgg ku siiw da ngay xool kii wax loolu ba xam ñu ngi koy tudd wala tudduñ ko man seex bi may gëstu lasraar ñi ma bokkal yëf yi ñii di ma ci jàngal ñii di ci teg ci yoon xam nañ ma lépp lu ma mas a dem tërali ko muy lu am njariñ bala ma ko liggéeyal kenn saa bopp laa koy liggéeyal waaw xam nga lu ñu daan wax almujarab waaw ndax man lu ñu ne lii na rek man la loolu danaa ko liggéey isin ko lu ñu ne day nangam rek bu ma ko jàng bu ma ko ba gis gis ne xam ne lii lu wér la maa jarbo doo jox nit bari na lu may jëflanteeg ay nit barke alquran billahi illasi la ilaha illa ba ma gëstoo am ci lu leer ci saa bopp ko njëkk a liggéey ci secret kër yeeg secret oto yeeg secret ubbi keeg secret xaalis ak lépp luñ ma jox muy lu wér ma jàng ko ci ki ma ko sama kilifa mu doy ma xam lu wér loo xam ne adduna sépp nangoon nañu ko xam-xam mu dema teete di ma ci yoon lépp lu ma lii bala maa liggéey jox kenn dama koy joowoo toog gis résultat ba doog ko liggéeyal nit waaw moo lépp lu ma toog ne mën naa ko liggéey rek am bu ma neexee laaj ci lu ma neex ndax am danaa ci xel mu daal ndax lii may def lu ma xam lay doon te lu ma liggéey ba te ba jar ba ba teg sama bët la bu ànd ak dogal yàlla incha allah foofa laa nekk wàllu ubbiku moom moo xam bay rek moo xam ngay way wala ngay jàng wala nga bëgg kàddu foo wax ñu dégg la wala ngay football bëgg a siiw wala nga ne ci mbir bëgg ñu ràññee la wala ngay jaay doon boroomu tur wala ngay musique saint wala ngay fecckat wala ngay borom làmb loo bëgg doon aw tur moom fa ñuy jaar ba nit ki yëkkati ko aw tur ku la koy utal da la yëkkati ba pare téye la boole laag loo xam ne boo jógee da nga téye waaye yëkkati la ba pare mu ànd ak lu ñëw fàdd la boo nee mëlëb moom kenn dootu la dégg tàkku tàkku tàkkul mboob la day fay te tàkku mooy nga fexe ba amatur ne mëlëb ñu ne woo diw diw diw nga ne mëlëb xam nga li koy waral mooy boo nee bëreet coow li ñëw boo amoon gàllaaj nag cat am na làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu am na bët yoo xam ne lu ñu xool mu yàqu moo tax cat yàlla na ci yàlla musal ndaw luy bara dox war nga mën a góorgóorlu fexe bay fa fago moo tax ku laan la dalee defal bayre wala mu defal la ubbiku te àndut ak kaaraange bul jël wala boo jëlee yaa ngi ci boo nee bëreet mën eh, fan weer ñaari weer nga ne ba sax kenn dootu la tudd bari na jaar na fi jàll bari na artiste ne dañ <coughs> fee jaar tàkk tàkk moom dañ ne falaas rek dem dañoo dañoo laal lu ne fëyi gaaw loolu nag yàkkamti la rek mais ak yëkkati ko ubbi ko moom ku la koy defal dalaa war a téyel tànk ndax am na bët yoo xam ne luñ tudd luñ xool mu yàqu làmmiñ yoo xam ne luñ tudd mu yàqu mooy nag ngay dégg ñu ne diw rek mu ñëw ne falaas rek ne mëpp kenn dootu ko dégg mu fay ci sensé loolu nag yàlla na ci yàlla moo tax ku defaral rek dalaa war a assuré waaye ku ko bëgg boo na contacté rek buñ ci jëflantee sabara mën na la ci defal tam allah kaaraange it ci doon def mbir yu yoo xamante ni kaaraange seex man li ma ciy liggéey jamono doo ko laaj fu mu toll ni tembe te man li ma ciy liggéey képp ku a mucc ndax bu dee ndomba la dama koy liggéey ba ci deru béy wu ñuul bi mi ngi fi càngat yi tamit mi ngi fi ba tey liggéey càngat goo xam ne ci wàllu kaaraange moom ku la laal faatu buñ la joxee càngat ga wala ñu lay xeex wala nga nekk ci barab ñu lay xeex di la sot wala ñu lay liggéey lu ñu tëf di la sëf li may njëkk a def mooy baxal li may baxal jox la rek nga sangoo joow mu dindil na sa yaram yëpp buñ paree lañ lay toftalal ku la laal dem yomal am waaw doomu aadama nag fi mu toll nii jamono xam ne kenn ku sañ ngaa def sa loo xam ne bul def kenn dara adduna moom li baax mooy fexeel ba yow yéene sa xol ñëpp jàmm am jàmm da nga am jàmm ku amul jàmm da nga am jàmm waaye boo bëggee toog rek ne nii ne yàlla yàlla bay tool yàlla yàlla bay sa tool waaw ndax suñu borom mi wàcce doomu aadama yi wàcce na loo xamante boo ko defee mucc dem ko defee ubbiku moo tax yàlla daraam du asaar lépp lu def am na lu tax moo tax it nag boo fi nekkee naan ay ah damaa bàyyi lépp ci loxo yàlla yàlla yàlla bay sa tool yàlla mi nu sax bind na liy saafara jàngoro ci alxuraan biri na liy def kaaraange biri na li liy def ubbikaay kon na kooku prévoir na lépp prévoir na nit ki war day tëju nit ki day day feebar nit ki day bëgg lii moo tax nag ñaan yàlla moom képp ku ko xeeb fi ko fekk leen bàyyi képp ku ko xeeb ci musiba ngay dëkk ndax da ngay ànd ak nit di xëccoo dara waaye nga ànd ak di wut dara moo am loo amut moo tax ndaw la ne war nay góorgóorlu ci boppam ngir fas yéene bay ñaanlu fi ne nii tembe jamono daa laaj boo bëggee dem da ngay ñaanlu ñaan yàlla fi ne mooy régler situation bi de ndax boo bëri ñu daan sa kaw boo ñu boo bëriwul ñu bëree daanu ci sa kaw jamono moo laaj ñaan ndaw yi nañ dellu ci sëriñ si ñu dimbali leen te yàlla tax seen mbir yu dëgër yi yëpp kenn gàttut wërsëg waaye ay tëjoog ay rabak ay liggéey moo leen jàpp lu waay dugg mu yàqu nan dem ñaanlu ji te bàyyi seen wax ji ñaan fi la ko mag ñi fekk fa sunu maam ndax dañ leen fekk ñuy ñaanlu kenn mun dafee ba ñaan amut nan dem ñaanlu ji xanaa kay booy ñaanlu nga xool ku la doy mooy la ci am ndax ab sëriñ moom boo koy dem di ko gis sa bopp da koy wóolu gëm ko yaakaar ko waaye di ko jox di xel yaar nit ki mën ngaa dem ci moom gëm ko bu tibb suuf jox la sax saa borom sottal sottal loola waaye di dugg ci lii di xel yaar naan est bu ma ko defee est-ce que mu nit du weral te looy dugg da nga koy gëm loo gëmut bul dugg man nag woowuma kenn waaye ku ma gëmut bu ma woo waaw wan nag woo man nag woo ma wala nga woo ma sax taxul man ma ñaanal la ndax bari nañu toog ay at di ma woo ay weer di ma woo te ma jot wala bu ñu ma jotee duñ jëflante fii ko sa aajo nar tafaju duñ jëflante waaw naa nañ dem na ñaan la ci kaaraange daal ku ko bëgg gu wér boo ma consulté goo bëgg bu dee looy takka bu dee sangu lu mu ci mën a doon formanté taftal loo na ko ma yor dadul jëfi gone loolu la yàlla dogal man bokku nga xam ne ñaan dañ naan tëb rek ñu tëb di kamaatara man lépp lu may gu lépp lu may wax lu ma xam la lu may def lu ma man la waaw loolu la yàlla dogal damay ñaan yàlla waaye xam naa code yi may jaar ba yàlla di ma may man fii ñëpp jaar mu seex li tëggaay mooy résultat résultat bi nga xam ne moo jafe sëriñ su bari résultat moom sëñ bi du ma ne yàlla man la jox lépp waaye li ci ëpp man la ko jox résultat yi fii lay ti koo seex man maa la ko wax ah bu dugg sama nopp bu ñu jëfandikoo saabaram xam nga li ànd ak yàlla daa wóor man damay ne li ma war a nekk bu bu ma gisut client te fu ma toll nag maa gis client day am waxtu yoo xam ne boo ñëwoon toog di ma jox ay million boo boo ñëwee da ngay toog xaar mënoo ko da ngay dem waaw sama diggante ak sama borom li ma ciy def bu waxtu jotee mbindeef munta tee ba ma def loolo ba pare ku mën a doon da ngay xaar boo yàkkamte da ngay dem waaw moo tax nag ñaan jaamu yàlla ci jaami yàlla waaye jaamu yàlla ci ak njub ak bu jaamu yàlla jotee nga jaamu yàlla man damaa ne ci sama course li mu ci war a liggéey ma di ko liggéey moo tax bari na ñu fi jaar ñoo xam ne dañ naan diw ñu ne tàkk-tàkkal dee déedéet lu wér bu nit ñi di ut xam-xam bu ñuy woote utal lu wér lépp mën naa jeex waaye lu wér moom du fi jog mën ngaa dee bàyyi ko fi te lii ma nekk nii sama njaboot laa bëgg moo fi jógee toog ci ay tappaleeki fen duma ci yar sama njaboot bëgguma ñu wéy ci bu ma ko doon def dama koy def man jàll ci lijjanti ku dem bàyyi eh, sama njaboot ma xaltaleen ci leen waaye ca ma lii ma nekk ma ci tiitu ma ci bu ma soñoon sama boo fi jógee tay doom ñooy toog ko def te ci yoon woowu loolu laa opté bu doon ma du ma ci poussé sama njaboot te loolu allah ci lu leer laay dox seex ci lu wér laay dox xam-xam bu wér ku ko bëgg fii ngay ñëw incha allah waaw bagaas yaa ngi fii de kooku mooy sëñ Modou Ndiaye mu sëñ Saliou jërëjëf acca waaye ñëwal ma ci ñi nga xam ne dañoo bëgg eh, lii di borom kër nee naa leen kuy taamu nag soo ñëwee ci moom sax de su la ñaanalee moom yaay tànn ka nga bëgg ba ci ñi bëgg lii di soxna ba ci wàllum am doom mu ngi ci def ñaan am solo. seex lu amul seede rek wóorut wàllu am doom nit ñëw na fi ci man matut semaine avant gàmm biñ gàmma ba pare mu ñëw ci man ne ma ñu ñu boole ma ak moom mu ne ma Casamance fu ne dem naa fa ay millions ay millions def naa ko ci sëriñ man nag sama mbir ku ku ñëw wax day dem. ay kilifa la kilifa la ay kilifa ñu ci moom ku ñëw wax day dem ba mu def yaakaaram day dem ma consulté ko wax ko ay saraxam nam toll lépp mu yëkkati lim ba jox ma ne ma demal ma taal sama moto bi ma defee sarax yi ba bàyyi mu am ay tur yu ma jox ma xool yooyu ne ko ñii intérêt lañ la topp mu ne ma li nga wax de day dëgg ndax damaa jëflante ñoom te am na fu ma jaar ak ñoom ay kilifa lañ waaw damay damay résumé rek léegi mu jox ma keneen ma tëral ko xool ko ne ko kii baax na kooko kam ma doon seetloo kooko bañ ko ñoom ñaar mu dem ci sëriñ mu ne ko kooko baax na léegi kooku ne ko demal sama sëriñ mu ne ko mën sëñ Modou yow ko liggéeyam fii a ma demee Dakar la ci war a jot ginnaaw yàlla ab liggéeyam bokk na ci li ma indi fii yaa ngi dégg sarax yi génn kaw ko ma ko doon seetloo ne ko xoolal léegi nuñ mën a def sama mbir bëggut bëggut bëggut bëggut bëggut yéex te nee na ma ay million fere naa ko ci ku ñëw wax dem diggante bi ñu ko waxtaanee matut ak biñ génnee sarax yeeg biñ xamanteeg biñ ko présenté waajeeg biñ ko seeteeg biñ jigéen gi ñëw ci man ne ma yaa may may yaa may maye ñooño buñ ma woowee ci yow laa ko yebal billahi illa si laa ilaha illa huwa maa ko maye biñ ma boolee kee bi ma laaje ci altine ji ne ma altine rafet na alxames rafet na ci altine ji laa ko ci altine tay jii laay woo ndaw si tay lañ koy fas man la ko bàyyeele te tay laay fas sëy bi man loola boobu résultat maa ko am maa ko ñaanal maa ko maye ci une semaine bi darajee alquran billahi illa si laa ilaha illa may dégg ay frère am ak ñi ak ak ñëpp ay mbokkam ñëpp ñu may dégg xam nañ li ma wax am la internet la nag te man damaa am sutura moo tax may damay résumé nii rek waaye du tudd tudd tur du ma leeral waaye lii may wax ñoom bu ko déggee xam nañ li xew wàllu ku bëgg borom kër boo ñëwee li may def njëkk def mooy consulter rek bu ma ko gàllankoor bu dee raba ma wax la koy dindee bu dee lu ñu defa ma xam solution ba la la gàllankoor ci kàttanu yàlla bu ma la tegee ci yoon ba nga tegee ci yoon woowu bu ci ñaan gi desee am na fi te buñ ci jëflante saabaru na la ci defal ndam incha allah naka noonu ci wàllu ñaar way dencante muy góor ak jigéen ci ñàkk am doom li ci jiitu mooy hôpital bu dee feebaru hôpital mënuma ci dara waaye boo ngeen demee hôpital ngeen ne gisuñ lu tee ngeen am doom ci wàllu baatin bu ngeen ñëwee ma tëral sama ram lu wax leen seenu seenu seet yéen lam gën ci yéen ñeen ñaar ñëpp laay teg bu dee jigéen gee ma ne jigéen gi ci problème bi ci moom la doon bu dee góor gi ma ne góor gi moo am problème bi wax leen solution ba na ngeen war a def bu ngeen ci defee bu ngeen ci jaaree bu ñu ci jëflante ci kàttanu yàlla ngeen am doom incha allah ne moo ko joxe am na fi waaye consulté ba xam la waral la waral jafe-jafe wax la la waar def ñu liggéey la ci saabaram defal la ci nam incha rawatina ci ndaw ñi néew kattan. waaw Cheikh loolu wax naa la ci sama émission bi parce gi mi ngi fi waaw kër gi lu ne mën na fee am xaalis bi mën na fee am millions yi mën na fee am situation bi mën na fee waaye kër gi bu fi amul teewut jigéen ñi kër gi bu fi amee boo amul dépasse sax mën nañ ko uti ñoom waaw kër gi kër gi neex daa gën kër gi yëngu kër gi daal kër gi ne tekk daa bëgg daa gën kër gi yëngu kër gi ne tekk nag moo fi ne waaw pommade la bu bees boo xam ne kër gi ne tekk laa ko génnee waaw situation kër gi ne tekk ku ko yittewoo sëñ mun waaye kër gi ne tekk nag man boo ma ne ma laa bëgg dama naan dañuy seet sa mbir xam nu mu war a doxee am na ci ñoo xam ne bu dee wàllu gàllankooru ci wàllu àndandoo la dañ lay wax sarax ya nga ñu ne la lii lañ koy liggéeyee càng defal la càngat yi la ko wax na nga ci def nga def ko jox la kër gi ne tekk nga utiliser ko saabaram saafara lépp waaye bu dee ne kër gi ne tekk nga bëgg yittewoo rek ne dañ koy consulter ba xam li la dal bu dee raba ñu ne la lee la waaye boo ñëwee jël boo demee jël utiliser pot bi dong te gàllankoor ba xamoo ko ci wàllu rab ak sarax baag yam war a def du tax mbir mi saafaraw da ci loo xam ne bu dee ne <coughs> ko yóbbee kër gi da a régler waaye nag bu fekkee ne daa am yu rax ay rab ak yooyu da nga koy consulter ba xam xóot-xóot ba la na ci biir bu dee wàllu rab la mu faju ko nga jox ko jox kër gi ne tekk moom lépp eh, réglé wu ci kàttu yàlla waaye saafara yooyu moom comme daal boo ñu contacter lu mu ci mën a moo xam ngay fooye sa bopp di fooye sa awra di mballo fu mu mën a doon rek dañ koy consulter xam la nga war a def yooyu moo gën a bon seex li gën a bon ci néew di delloo yooyu fooye sa awra nii lii baaxut tookee la ci eh, ci awra waaw day day waral yu bari eh, infection yu bari da koy indi ci wàllu sëy moo tax mbir ki nit ki faaw nga maîtriser li ngay def bu la nit ki waxee nga ne tekk déglu ko ci wàllu ci wàllu xel mu wax la nga déglu xam am na ñoo xam ma waxee rek bu ñu damay xam ñoom seen feebar la lan la a ma koy seet te bu ma ko seetee loolu la may jox loolu na xam-xam moo koy def ah mbir loo jàngut mënoo koo xam waaye loo jàng mën koo xam incha allah waaw jërëjëf sëñ Modou Ndiaye sëñ Saliou jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo ate ñu jeexale ci actualité mu di xew-xew jamono ni mu ko doon waxee de gars yi ñu ngi tëj rek comme ni nga ko waxee woon te yàgg koo gis gars yi ko mën a raw wala ko mën a wuti kaaraange li nga gisoon ci prison yi gars tëj bi fi mu ne tàmbale na de nga ne gis ci ak après tëj lan nga gis gis ci biir prison bi Cheikh damay ci tëj yi mm. xam nga dossiers yi laa la fi taxawal ne la bari na ñoo xam ne danañ leen woo danañ leen denc ci kaso émission bi ma la ko wax avant ma defaat émission bari na lu ci yëngu waaw te it bi ma defee loolu ba pare président Ousmane Sonko génn na def sortie kon war kon te xam nga ne am na ñeneen ñu war a wuy ji des na prison yi nag am na ñoo xam ne miinuñ prison moom xamuñu ko waaye li ma ci yàlla wan ñu ñu ciy génnee ñi muur leen mbalaan mu weex tàll lu ne nag mën naa xew xam nga li ko waral mooy nit ki bu lu mu xamut asgor asgor la lam xamut bu ko xamut rek mën naa andi lenn waaye maa ngi ci gis loo xam ne bu boobaa du ma neex. du feebar wala dee boobu. waaw loo ci xalaat nag mi ngi ci biir ko ñoo xam ne daal pétition lañ leen di waaye mbalaan mu wax lañ leen di muuree moom du ma ne nag dañuy waaye loolu moom danañ ko jege waaw te du yàgg dara nag lii maa la ko wax seex te da ci xam dara waaye li ma bëgg nga xam ko daal mooy pétition moom as gor moomu ko bu ci xasee dugg rek lu ne mën na ko caa fekk waaw lu ne mën na ko képp koo ci xamante ne yàlla dogal na tudd nañ la ba war laa woo te nga ko teel na am na ci ñooñ nag def nañ ko ci suuf waxoon naa la ko ci sama émission bay am xam ne jaar nañ ci suuf ñoom rek la situation bi te coow ñi nga xamante ne sa borom dogal na caabi féeriti ci ginnaaw yàlla na leen saa borom génne fee waaye bu fekkee daal denc nañ dañ dem génne rek ñëw moo gën a gi maanaam kuñ ci woo dañ lay déglu rek fii moom Sénégal la Sénégal la ñun moom dañuy def woo ñëw déglu nga leeral waaw boo leeralee rek moom sa kër ngay reer waaye boo leeralu tuuti moom des lay téye rek ba keroog ñu am lu leer moom incha allah pétition yi moom euh, nga xamante ni bii dañoo dëngal rek moo tax ñu def ko waaye ku dëngalu tuuti nag boo amee taxaw man mën naa leer la woowee nga déglu la daal nga wax lu leer mën ngaa ñibbi waaye buñ la dégloo waxoo lu leer danañ la ba keroog ngay lu leer rek loolu wàññiwut dara waaw ku lekkut moom mm, mm, sab xel mën naa dal waaye ku lekkit nag moom bu yóbboo boo mënee boo mënee gox rek balaa dara xew daa gën incha allah maa ngi leen koy baaxee nag jërë ngeen jëf acca élection it li ci desati mën naa ne bëriwut ñu gën di jege rek mu di le 17 novembre gars yi nag nee nañ Pastef moom na gars yi voté ñëpp ñoom majorité mën a am ci réew waase see xam nga li ah, xam nga xam nga li am des mooy ki nga xamante ne bii dafa jël gaal gee duy ko ba mu fees ak xaalis mu jox la ko ba pare jël caabi ja téye ko bu boobaa dootu am njariñ boo boo tijjuut gaal ga xaalis bi du la amal njariñ nit ki bu fekkee ne da nga am ci moom yaakaar mu doy la nga wooteel ko fal ko te doole doole gi xam nga lan la assemblée nationale waaw bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko pouvoir occupé rek réew mi mën naa dox mais bu fekkee ne occupé woo ko mën ngaa bëgg a dara mais dañ lay gàllankoor dañ la koy lankal ni ñu war a def nag mooy issin comme yow da laa doy ba nga ñëw teg ko ci lii boo ko xañ leneen la rikk jàppale ko ci leneen la nag toog déglu ko nag nga xam ne yow li nga war a def def nga ko élection législative ko war a wooteel comme wooteel nga ko lee da lii gir bëgg ko xool nag boo ko defee nag sa jaan wàcc nag moom nga dem toog nag liñ la waxoon nag nga déglu kenn ku ne am nga la waxoon buñ ci buñ ko defee nga xam ne ko defut nga xam ne ñoom war am na lii dong laay conseil doomu sénégalais yi koo wooteel ba mu falu wooteel ko mu gagné ensemble boo ko defee boo ko defee yow lebal nga ko toog nga di ko déglu nag def nga nii def nga li nga war a def bu fekkee nag moom lam waxoon defu ko daa taatal soo carte rek toog ba élection ñëwee nga ne ko mu abal la loolu mooy li fi nekk comme nag ñoom fal nañ leen ñuy doxal nañ leen may temps ñu dox tuuti buñ ñëwee ensemble ñu fexe bañ occupé ensemble bi ñu bëgg a muy lu baax buñ ko tegee ñu ne bismillah taxee léegi nag bu fekkee ne doxuñu réew mi dara mënu ci sensé moom ñu daasaat suñu carte rek président Ousmane Sonko ñun dañ ko wóolu mook président Bassirou Diomaye Faye mii nga xamante ne bii yàlla dogal na saa moom la fi teg ci ndigalul Ousmane Sonko nga xam ne moom la yàlla dogaloon nit ñi doon dox ci mbiram ba munta dem mu joxoon ñu Diomaye ñu ànd ak moom ñoom ñaar ñu ànd lépp rafet ñu jox leen réew mi toog ñu doy ñu bu ñu leen joxee ensemble wàccoon nañ ak ñoom bu ñu liggéeyalee ñu bàyyi leen fi bu ñu liggéeyalati nag ñu jëlee leen fi waaw lii mooy li nekk waaye nag dañ leen war a jàppale bañ gañe assemblée nationale bu boobaa li ñu bëgg a def ci ñun liñ ñu bëggal bu boobaa la ñuy mën a am doole ji waaye buñ leen ko xañee liñ ñu bëgg defal nag mënuñ ñu koo defal ndax dañuy ñàkk buñ amee fii doole fee duñ fa am doole dëgg mooy dëgg waaw day am loo xam ne nit day lu ci yàlla nit ki bu la doyee ba nga fay ba nga fal ko da nga koy jàppale ci lu bari bu doon sax jël sa alal def ko ba mu génn ci lii da nga ko war a def ngir dimbale ko boo defee la nga war a defam te defut def nga xam ne ay li yéen def nga li nga waroon a def defut li mu war a def fii laa mën a yem waaye jox ko pouvoir mu toog nga xañ ko ensemble bu boobaa bu bu amut doole liggéey yaako yaako yaa ko yaa ko jox bopp roccu làmmiñ li nga liñ bëgg régler mënuñ koo régler waaye sama gars yi ma gis nag bis buñ leen bis buñ leen mayee temps dooleel leen ci kàttanu yàlla réew mi li fi régler dana bari de maanaam luubal àllu jàmbur moom dafay jeex waaw te ñu ngi yoon yi nag li ñu mën a def nag mooy doole leen rek ñaanal leen jàmm lépp tege ci yoon bu ñu ko defee rek jàmm mën naa am de waaw man nag moom Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ak Bougane Gueye ak Amadou Ba ñëpp a ceem ku ci mën a yor réew mi te doxal man ñoom laa na man ñoom ñii ngay wax nii amut kenn ku ma ci joxu 1000 francs man lu Sénégalais doomu aadama sama réew moo ñor ak samay population doomu aadama ngir ku fi nekk kuñ fi yàlla dogal ñam ci yaakaar ba teg la fi ñu doole la nga liggéey réew mi boo mënut nga abale keneen toog waaye man tooguma fi ngir kenn joxuñu ma dara campagne ñu ma du politicien waaye ku ku fi wax lu leer lu ma doy dama cee ànd ak yow maag ñi ma ñaana àndal ñaanal la dooleel la bu mu defee li ñu war a def nag doxoo nga abal nu comme nag ñoom doy nañ ñu bañ teg leen nañ leen dooleel bañ génn ci lii buñ ñu wanee luñ xam ñu ànd ak ñoom heure bu ñu watee ñu tegaat leen fi buñ leen joxee lépp nag liggéeyuñ bu boobaa ñu xam nañu doxe waaye pour l'instant daal nañ leen jàppale te nit ñu baax lañ nag ñu am ngor lañ te ñu ngi doxalit nag waaw te lépp dana tege ci yoon li gën a neex nag mooy dëggu gi te am réew mu Sénégal moom boo ko bëggee yor faaw ngay doxal te bul gestu képp ku fi nekk ñu ànd ak yow amut yàlla mi ñu bind sax wàcce ñu senegal am ne ci ñoo xam ne ànduñ ak moom bu su liggéey ñu ne yàlla ni a ah, dafa tàng dafa tàng na moo tax boo ci nekkee yow defal li nga war a def rek waaye kuy critiquer bu ko lijjee ndax Sénégal moom ci coow la ubbee te ci coow lay tëjee bis bu set ci coow rek ku fi yow mi ne ci dox sax faaw ñuy coow ci yow di wax ku wax ñu wax ci sa kaw da ngay fexe ba def la nga war def bàyyi ñuy wax ñoo xam waaye ay ñuy wax rek ñuy bu leen lijjanti defal la nga war def rek faaw nag ñuy wax moom di wax waaye yow la nga war def rek def ci moo baaxoo nii suñu réew mi ci coow lay ubbee ci lay tëjee lépp lu fi mën a ne coow rek waaw yàlla na yàlla defal jàmm allah waaw xanaa nag di la di sant yàlla bu baax nag di ñaan ci yàlla suñu kaddu fekk ñëpp jàmm di ñaanal senegal yëpp <coughs> waaye seex man yàlla daa dogal damaa doon nit koo xam ne damay ñeewantu doomu aadama bëggu kuy def geste yu baax yu rafet di yërëm doomu aadama waaye Waly Seck waxoon naa ci sama émission bee passé euh, defaloon na acte bu ma neex muy li ma déggoon mu defoon ko ci mook El Malick ngir amoon yéene ci wàllu doxal investir ci réewam waaye dama tëddaat ñu war ma ci moom lu euh, wax naa ci émission dama tëddaat ñu war ma ci moom lu rëy waaw loo li liñ ma wan ci moom nag danaa ko leeral fii Eh, na ko Sénégalais yëpp jàppale te ñaanal ko ambition am laa xam yéeneem ci xolam te te su ma ko waxee rek mu mata a gëm ndax ab tab wala ku yéene di def ci réewam rek buñ ne laa nangam ci moom rek te muy dëgg nit ñu ñi ñun moom ay xel lan yor yor ay bët di gis boo waxee ci nit lu dëgg nit ñi mën nañoo xam ne yow lii nga ay fen la waaye koo xam ne social da koo soxal nu réewam avancé da koo soxal ba mu jóg eh, fas yéene investir ci réewam ma wax ci sama émission bee passé mu tëdd koo def sax am ñu mu daggal ay ay hectare ci ay nitam. waaw loolu am xam nga lu baax moom de su ko nëbbu koy weer man moom bu ma xamee ci ab safaan am naa droit xam ne maa moom Saba Lamine danaa ko tëj ba du ma la waxal waaye ku ma gis nga def geste bu rafet bu baax am naa droit wax am dama lay ñaanal sax nag su ma jullee dama lay ñaanal su may liggéey sama course dama lay ñaanal jërul sax nga may woo bëgguma laa xamit nag waaye comme kuy def lu baax muy moom di keneen dañ ko war di encourager di ko dooleel te bañ koo fakkas tal waaye daal gisal naa ko loo xam ne na góorgóor la ci boppam tàmbaleegut mbiram Wally sek mbiram tàmbaleegut ndax lu baax moom kenn du ko def di dellu naaw te maa gi giñ ci sëñ Tuubaa liñ ma wan ci mbiram danga nga ne sëñ Moodu waxoon nga ma ko yàlla na ko yàlla lafal cet waaye mbiram tàmbaleegut waa axiru daxwaana wala alhamdulilah jërë ngeen jëf